xam nga barki démb damaa doon rek ne daa doon sama benn rak Mouhamed Mbacke maa ngi koy nuyu bi ñuy reer ma ni ko ma ne waa dégg nga li waa jox nee na Macky Sall da doon tayal mu ne ma déet kooku lu mu def kooku muy lu mu def bañ koy tayal gars yi moom kenn waxul <laughs> koy sàcc bi romb na ah, rek nga du man gars yi daal yow daa mel yooyu fi am de mais sëñ bi sëñ bi ah, sànq maa ngi doon wax de am na benn euh, détail bu ma bëggoon a yëkkati de détail la de ci li ma jàpp sax waaye daal xam naa bëggoon naa ci am sa xalaat de euh, Serigne Cheikh Bara damaa gis kat Touba ba mu demee dañ ko faa téye woon. téye bi lan la moom daa xamul état comme ni ko nit ñi di waxee. waaw ñoom loolu ñoo ko wax rek mais du mais du loolu sax. lan ah, ma nekkul man mii di wax ak yow. waaw 2012. waaw Macky man ñu ko doon combat bu mu falu man ci laa bokk. yàlla faral ko ci kàttanam ak mbaaxam. waaw ah. mu war faa ñëw sëñ Sidi Maxtaar ne ah, dem leen ngeen teewru jël ma ko loolu weeru koor la Macky bu ko fàttewut wala ñii sax fàttewuñ ko toog nañ fi presque lu ma deux heures di ko xaar xaar nañ ko ba bay man 3 heures laa fa dem di ko xaar ba 18 tegal ba 19 heures jot bi ñuy bëgg a dog ci la Macky Sall ñëw bi Macky ñëwee bi mu wàccee ku ko waaye defal defal ku ko waaye mën nga dem YouTube nga xool première visite Macky Sall à Touba mois de Ramadan. Mhm. man ku ko ku ko bëgg a xool mën nga dem nga xool loolu. Mhm. tëjuñ ya man kenn woowu ma ku dul sëñ Sidi Maxtaar demal demal ngeen teeru ji ko en tant que sëriñ bu dëggal taalibe mu dem di jafe ji en tant que kuy teeru maa ngi Macky Sall ma ne la ñoo ànd dugg ci dugg ci jumaa ji maa ngi moom mm-hmm. maa ngi Macky Sall ñoo ànd dugg ci jumaa ji ñoo ànd si arando maa ngi Macky Sall bi ñuy génn ñoo àndaat fi ne mm-hmm. yaa ngi dégg man jege naa Macky Sall jegin woo xam ne garde bi sax moom mujj teg loo xam ne ma mayal président quelques mètres garde bi daal wax de daf ne ma nii ma xool mu ne ma ah, mayal nga baal ma nga may tuuti président bi ab diggante daal distance mm-hmm. loolu ci la bokk c'est vrai nag président buy ñëw nag moom waaw te kenn misaal mooy kenn tëjul porte yi te man doo doonu moon ab diplomate doonu moon ko xam ne état bi ma invité doonu nga xam ne ñoom ñoom woo man da damaa gis na rek loola dafa nekk euh, organisation bu jógee ci ñeneen ñu dul et ñu man loolu laa gëm man. noonu daal lañ ko mën a jàng. ma ah, waaw tey it man na tey vidéo bi ku ko ku may seetaan génneel vidéo bi nga teg ci sa bët nga xool bu baax nga sa tantal. Mm-hmm. Cheikh Bara bi muy ñëw fi mu jaar ci wetu oto président bi la jaar bam fa jaaree bu ngeen seetloo. romb na benn takk boo xam ne xam naa ci garde mouvement présidentiel yi la bokk. Hmm. kilifa la ca ñoom dégg nga. Hmm. bu doon ne moom dañu koy tere. kon fi mu jaar mënu faa jaar. Hmm. ndax ñi nga xam ne ñoom tër ñi nga xam ne ñoom dañ leen tere ñu jaar fa. boo seetee ci bunt bi nga xool baax. waaw ñu ngi leen boloki nii ñoom ñëpp taxaw. fi Cheikh Bara jaar ba mu fay jaar fekk ba mu nit ñi ngi taxaw nii fekku fa picc fi mu jaar moom dong fa jaar waaxu. nee ba ci port bi nag foofu nañ foofu nañ fi taxaw. waaw mooy gis nga demal palais de la république. Mhm. Hmm? waaw. ñu yor ñu yor porte centrale bi. waaw ñoom dañuy féete porte bi biir wala ñu koy féete bitti. Hmm. Hmm? bëgg foofu. ñoom bitti la ñuy féete professionnellement. porte garde rouge yi. garde rouge yi. waaw yenn kay gendarme yu sol ay kii xam nga am ñu ne ci biir. xam nga am ñu ne ci biir am ñu nekk ci biir. très bien xam nga noonu lay tëddee. waaw waaye porte bi laa la wax. ki yor caabi bi bu ko xasee ba ne ko ràpp tëj moom day dem yoonam moom. waaw. daa dul si du ko yor. waaw du yor caabi ci xam nga. waaw ñeent ak ñoom ñoo ñoom ñoom ñoo yor porte bee korosé yi. Hmm, comprendre naa. <laughs> xam nga leen waaw. te ñoom ci biir lañ ne. biti gi kenn nekku fa bu doon bu doon maanaam gar bu fekkoon ne organisation état la day gën a professionnel loolu. Hmm. day gën a professionnel loolu. day gën a professionnel loolu mooy day am ñoo xam ne day professionnel de. protocole état nag bokkul ak leen. day professionnel de trop. day professionnel mooy buntu ba Cheikh Bara dafa dul egsi yow état boo ne da koy xam nga da Sëñ Tuubaa daa am ku mu waxoon ne ko dama bëgg nga ñëw dem ci diw nga ñagal ma ko nag xam nga lu dem ñaga état doy fo de ko du duy fo mu mm-hmm. ne xam nga lu ñag mbàkki mu ne ko dee mu ne ko am ñag mooy day gën a dëgër la muy ñag mm-hmm. xam nga waaw yow yaa ngi war a nekk garde présidentielle nga ne ci biir buntu nga ne ci biir bàyyi biti gi yow koy biti gi nga war a seere pare door seere biir gi parce que mm-hmm. biti gi luy ñëw ci biti lay jógee lu hmm. jógee ci biir mu la na ci biir yow itteelatu la hmm. léegi yow ki ci biir moom day dimbali ki ci bitti hmm. lépp luy dugg te wut dugg ci bitti lay jóge léegi ñi doon ñi yoroon yi lay xoolal seen col gi ndax ay garde présidentielle lañ xoolaatal bu baax xoolal porte yi ba xam ñu ko ñi yor bunt yor korosé yi ak seen col gi la d'accord comprendre loolu doo dem pale mukk bu fekk fa garde présidentielle bu ko sol damaa yaakaar loolu day euh, day leneen lu jógee feneen nga xam ne keneen ku du seex baaret bu ci tombé woon noonu lay demee bu ci tombé noonu lay deme waaw ñun de yàlla buñ ci tombé ndax ki protocole président dafa métti de. loolu loolu protocole président. <laughs> non comprendre man la protocole président man. laa la wax man. yem naa ci. ànd ak Macky Sall dugg ci jumaa ji génnaat te kenn tëjul jumaa ji. Mhm. ba man ma jege Macky Sall ba garde bi teg ma loxo ne ma mayel tuuti président bi distance loolooy protocole présidence. te gis nga protocole présidence. président de la République gis nga dafa am euh, ville religieuse dafa nekk dafa nekk lu exceptionnel. Mhm. loo xam ne buñ fay dem. Mhm. du bokk ak tey bu ñu doon dem Paris. Mhm. ñoom bu ñuy dem foofa. Mhm. dañuy am ruux samam dañuy am yolomal dañuy yolomal ci nit ñañ fay fekk. ngir barab ba na muy na muy bindoo dañ koy dañ ko ci bàyyi xel bàyyi waale xel te loolu it fee ko président mu jox ko ko nangu koo xam ne day xëcc président dee ko yooyu xam ndax boo seetloo bi mu demee Kaolack moom Macky Sall am na benn sëtu El Hadj Ibrahima Niass buy wax ak moom. Mhm. yaa ngi dégg di ko xëcc di wax ak moom. El Hadj Mbaye Peex di am ko muy kii mu daal di ne ko maa ngi ne dañuy wax xam nga loolu déjà protocole présidentiel nangu ko mais wér de ses yi wér wér de ses yi dañu am ci ñoom tolérance. waaw léegi bu ñu demee euh, ci wér de ses yooyu. waaw ñu jël maanaam li leen protocole présidentiel may lépp ñu appliqué ko. Mhm. ñu ko def mhm. waaw. am na solo sëriñ bi am na solo mais xaaral ma nuyu sama gaay yi sa gaay yi ñu ngi lay nuyu André Modou Ndaw nee na sëriñam bi waa nuyul André André nee na <laughs> waaw nee na yaay sëriñam kat André maa ngi lay siyaar bu baax di la nuyu di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ci internet bi ñu topp di leen siyaar ñoom tam li nga wax kay li ma la <laughs> <laughs> mu ngi noonu en tout cas maa ngi lay nuyu Fatou Wade Fatou Fa mbóoj ah Souleymane Fall man ak yéen ñooy defandoo émission bi moo tax ah maa ngi leen di nuyu bu baax a baax baax ah sëriñ bi kay li muy wax nii Souleymane Fall boo mënoon a xam niveau bi sëriñ bi li muy wax day kawe de ah King ah, kun Kunte maa ngi lay nuyu ah euh, nee na ma c'est quel genre d'opposition qu'on a au Sénégal mois je comprends plus kenn comprendre ah jërëjëf ah Kumba euh, Gaye jaa jaajëfal naa la yéen ñëpp maa ngi leen di ziara bu baax a baax Ami fay ah euh, cant ak ngërëm ñeel na leen lii moom man rek ko sañte man rek maa koy def de ah, moo tax euh, Njaga Yàdd noonu la tudd Baadu Njaga Yàdd suñu joueur bi donc te mu nekkoon mett Njaga maa ngi lay nuyu bu dee boobu la itam nuyu naa ko bu dee du boobu itam nuyu naa la Fafa Faatu Fa Mbooj ah euh, jërëjëf donc moom mooy suma ambassadeur de bu ñu ko yóbbee Arabie Saoudite bu ñu ko yóbbul yëpp man maa ko nommé ambassadeur man ah, ndax suma xarit la yéen ñëpp ah Daouda Koli maa ngi lay ziara bu baax a baax a baax ah King Kunkan Kinte donc nu ma ni mu bindee bi métti de donc Ami Faye ah, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp maa ngi gis seen i seen i ay message ah di leen jaajëfal di leen tatagal di leen jox seen wàccuwaay ah Bambali ñii seetaan itam te bindu yéen ñëpp maa ngi leen di ziara Serigne Mbaye Serigne Mbaye maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax kii moom suma benn xarit la bu baax sax comme ñeneen ñëpp ñoom ànd ñoom ñëpp Penda Dem. nuyu naa ñëpp daal en tout cas su ma limee damay juum comme que donte lim naa moo tax ma koy def Moussa Ciss jërëjëf Fatou Ndiole Diop Cheikh Ñaa Boubacar Sané nuyu naa ñi ma jot ñi ma gis ñëpp donc cant ak ngërëm ñeen na leen parce que lii mooy émission bi moo tax ma leen di ziyaara di leen nuyu di leen di leen tatagal chaque jour ma laaj numéro whatsapp sëriñ bi dinaa la ko jox xoola da ngay woote 78 472 49 49 nga dugg foofu waa régie ñu jox la numéro sëriñ Modou Astou Mbacké nga koy woo muy déggante ak yow André ziyaar naa la nee na vocal na la jotoo jotu la man gars yi dinañ ma rey yéen fu waaye mën di nekk moo xam France la états uni Angleterre Espagne foo waay mën di nekk rek maa ngi lay nuyu bu baax a baax am naa nag sama maire bu baax moom tamit maire Dieng ah, ah yaayu soxna Jaara Bousso depuis États-Unis d'Amérique maa ngi lay nuyu Fatou Kiné ah yéen ñëpp cant ak ngërëm ñeen na leen sëriñ bi ku mel ni gii Marius Sagna moom daa mel ni toog muy dox bi moom intéressé waa toog muy dox bi tamit bëgg naa nga nga wax ci sa xalaat. moom nee na toog muy dox moom. damaa gis ñu koy tontu ñoo xam ne ñoom kenn waxut am ñu ma gis ñu ko tontu ñoom la kenn waxut ak ñoom. Mhm. nga man personnellement man dama am sama sëriñ man. Mhm. jaayante ak moom ci samxan wa taaxatan. man mhm. li ma digal may def ma dégg ma li ma dara may bàyyi man ci li may liggéey di ci daan doole. maa ngi sama morom yi yi ko gëm yaakaar ko. ñun fii ne ñoo bëgg moom mu toog. muy dox te ñun ci li ñuy ci li ñu am ñun ci lañuy ñuy fexe ba muy toog muy dox. waaw. xam nga baax ñun ñoo bëgg loolu ñun xam nga ñun ay mag yi jëmm lañ hmm. yor suñu xel di xalaat da rasikul ci ñun hmm. même bu loolu bu dul yoon te ñun ñu nangu ko it wala fa ne mag lu mu nangu teg ko ko daggan na bàyyi leen ñu teg ñu ko hmm. mu teg ñu ko ñun ñoo nangu loolu daal ci misaal ñun ñoo nangu suñu sëriñ toog bu ko neexee heure bu ko neex na yow heure bu ko neex na tukki heure bu ko neex na génn ñun ñoo gëm loolu daal xam nga day saa loolu ñun boroomi xel lañ liggéey di am suñu wërsëg boroomi xel lañ yoo xam ne ay nit lañ comme ñëpp loolu ñun bu ñu ko nangoo yéen bàyyi leen ñoog loolu loolu ñun suñu affaire la mhm. dégg nga parce que Ousmane Oustaz Modou Fall de moo ko tontu woon ci gàttal waaw waaw man man fi may waxee rek man man fi may waxee yow da nga koy wax d'une manière générale waaw man d'une manière générale laay wax yow da nga da nga baax moo waaw kay d'une manière générale laay wax yow jërëjëf léegi nag mu desaat beneen toog muy dox boo xam ne wërta am xam nga bi ñuy def euh, audit fonction publique 2012 mhm. te mhm. euh, le ministre Mansour Sy jiite woon ko yow da ngaa baax ñaata junni nit la ñu génne ñoo xam ne maanaam ay emploi fictif lañ muy toog muy dox Mm-hmm. loolu nii ndax da ngeen koy encouragé mm-hmm. ndax da ngeen koy nangu mm-hmm. da ngeen ko nangu cest à koo xam ne boo demee ministère da doon na fa chargé de mission ci beneen ministère bi da fa chargé de mission am benn salaire ci fonction publique ne moom conseil président wala conseil euh, ministère ministre sàngam la tey wala mu ngi liggéey barab sàngam te yëpp weer wu dee mu dajale ay salaire am mu mat deux millions trois millions te moom liggéeyut saa su xëyee moom ma nga place di ñaw Mhm. loolu loolu loolu jibi parce que même même li ngay wax ni de rejoindre tey ji sax mooy syndicat bi nekk ca port autonome bu Dakar ñoom sax nee nañu DG ba di Mountaga Sy ah lu toll ci daanaka mille doomi aadama recrutement la recruter ci benn weer ci benn weer léegi te ñooñu ñu ñu recruter noonu koo ci dem ne ko fan lay liggéeyee ak foo daan liggéey ak fooy xëyee fan ngay xëyee fi ne moom du la ko wax loolu nag mooy toog muy dox toog muy dox yooyu ku ñu wax toog muy dox. ah yu foofu la ñuy foofu la wax toog muy dox. mooy ñi ñuy recruter. waaw te jaaduwul te jaaduwul. ñu tëdd di te amuñu liggéey weer jot ñu fayee ko. weeru loolu la ñuy wax loolu moo dëgg dëgg toog muy dox mooy loolu. léegi nag nitu yàlla ki liggéeyal yàlla dégg nga ba nga xam ne ki koy jox alalam yàlla la ci wut kooku ak toog muy dox kenn waxul kooku mhm. sëñ Tuubaa dafa xam ne yonte baaxi suróor yi la saay mhm. dégg nga dana day desal mbégteem toog muy dox loolu la sa wax dana yonte bi mhm. baaxee suróor lil ju la saay loolu mooy toog muy dox fi ne mhm. baaxee suróor yi lil ju saay ci ma mooy toog muy mhm. dox mais loolu mais loolu abrade ñoo ko moom nit ñu baax ñi dégg nga mais sama moom dañoo war a liggéey pour dund sama genre gi dañoo war a liggéey waaw dañoo war a liggéey pour dund sëñ Touba lu mu waxoon ci liggéey sëñ Touba daa ne liggéey ndax liggéey dana faj seen soxla dana tax a sàmm seen ngor dana rafet ak jaamu yàlla dana rafetal ak jaamu yàlla déggal ma na nee na nee na nee na na leen ko li tax mu baax nee na soxla soo am di ko mën a faj mhm. te da nga mën a nit ñi mu mhm. ne jaamu naa leen ko mhm. li tax ngeen li tax mu baax ma bi ma ko defee yàlla war na koo jaral sonn na ngeen di la jaral sonn lii de ay diglam la noonu la ko waxee na ngeen liggéey ndax ngeen mën ak seen bopp mën ak nit ñi na ngeen jaamu yàlla ndax ngeen mën ak seen borom jàngal na xasida yi ngeen ko moom te ñu ko jàppoon nit kenn ku ko jëlee ci amul loolu daal man gis naa ne moom mooy wax bi. nga xam ne mooy wax ji daal ci gàttal moom mooy wax maa gis kii di kii di kii di sa xarit sëñ Cheikh Thioro Mbacké ku mel ni Guy Marius Sagna mais surtout Guy Marius Sagna moom moom mu ngay dénoncer sukkaru koor yi ñuy joxe ci fu mel ni assemblée nationale. nañ ko jox góor yi. waaw waaw loolu moom d'accord naa. te bu dul loolu bu loolu daa mel ni euh, détournement la. xam nga xaalis la bu ñuy génn di ko di ko di ko di ko génn di ko joxe ñu ko bëggee. waaw loolu moom mooy ko fenn te argent contribuable la. mooy li ak li ak nite nangu mooy li nga xam ne mooy li alxuraan nangu mooy li borom xel ak borom xam-xam yépp nangu doon te borom xam-xam yi gëmuñu yàlla gëmuñu yeneen loolu mooy li nangu ñoom ndimbal moom da nga ko jox ki nga mhm. mhm. maanaam ah, ndimbal moom ak ay aide jox nañ ko ko aajo wala mais am na yenn ndimbal yoo xam dañ la de mooy li nga wax loolu loolu tuddul ndimbal loolu xam nga lu tudd xaalis loolu loolu corruption la du ndimbal ay corruption loolu corruption la loolu correction xam nga luy ndimbal mooy lan tey jii ki nga xam ne xam nga fa ne gis nga benn imam bu génn ne moom dañ ko jox fukki junni mhm. pour suukaru koor xam nga am na ñu bari ñu ko ñu ko wax ne ñun dañ ñu ko daan jox joxuñu ko mhm. xam nga xam nga ñu mel noonu man nga leen a comprendre d'une part xam nga mën nga leen a comprendre de mhm. man ñooñu teenguma ci ñoom parce que gis nga mag moo gën a soxla ñëpp xaalis mag te fi ne xaalisam du ci lekk du ci naan du ci solo mag du ci lekk du ci naan du ci solo ndax fi ne mag bu xëyee doom jaa yor njël la. Mm-hmm. dégg mm-hmm. mag su feebaree ñu yoonu yóbbu hôpital doom jaay faj mag buy solo doom jaay solal lalam sax doom jaa koy soppi kon dèjà mag xam nga luy seen fere ñoom seen jarbaat yeeg seen doomi jigéen yi say feneen. loolu mm-hmm. seen i fere ñoom. yaa ngi dégg loolu. ñoom loolu mooy seen fere. maag moom loolu ay fereem ay jarbaatam ak sëtam ak i doomam loolu ay fereem mag moom. moo tax boo gisee ñu jékki-jékki woo seen doom ne ko may ma nangam. automatiquement da nga xam ne kii li muy ñaan doyu ko daara daara daara daara lu dul rek mm-hmm. maye mm-hmm. lu dul maye mm-hmm. din part loolu mën mën nga ko gisee noonu xam nga mën wax baax waaye nag député bi am un million trois cent ak ay privilèges am yor ñu koy jox essence du koy jox suukar ko ah waaw loolu moom loolu ko loolu corruption la ah, loolu koy corruption loolu corruption la ñu bàyyi caaxaan waay xam nga joxe moom bu mën ta ñàkk ah. joxal ki ko soxlam waay ñu bàyyi caaxaan waay sëñ bi sëñ bi nañ bàyyi caaxaan